Euh, salaamaaleykum mbokki internetu Lac Rose TV ñu ñëw ak yéen ci seen émission kaay seetlu émission kay seetlu nag ñu jagleel ko euh, képp koo xamante ne rek kilifa nga nekk ci réew mi di yëngu ci wàllu seet di yëngu ci wàllu xam-xam ñoom la ñu jagleel li nga xamante ni moom mooy émission bi euh, tey nag ñu génn suñuy béréb ñëw ba ci benn dëkk bu ñu naan Daaru Cubb nekk fii ci commune Sangalkam Euh, ñu ñëw fi fekk fi kilifa gu yéeme yéeme yéeme kilifa gi doy waar waaye liñ naan tungu ne du teew ñuy nataal dañuy bàyyi mu nuyoo wax ñu moom mooy kan après ñu ñëw ak moom ci laaj euh, sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. Euh, ngi leen di fay di leen ziyaare bi ma jullee si yàlla bi bi ma sante yàlla julli si yenente bi maa ngi leen di sant di leen ziyaare baax a baax a baax a baax. sëñ man est-ce que mën nañ xam sa tur dëgg-dëgg. waaw man sëñ Cheikh sar la tuddu Serigne Cheikh sar general mom lañ may wowe li tax ñuma koy wowe nak jalore eh, ay jallore jallore jallore la sama digënté ak dom adamay sama digënté ak sama digai, sama digënté ak sama jëm mo tax ñu tuddé ma lolu ndax mayam yalla ku nekk la koy may pousse la mag da koy for ndaw da koy for ndax bi yenente bi waxé né utlubul ilma walaw kana bishil Chine nee na ngeen sàkku ji xam-xam donte le bi rewusi la sax ngeen ji xam-xam moo tax biñ ko amee nag il faut ñu xaaw a def lu yéeme ndax dëkk bee ko laaj. Euh, sëñ Cheikh ñu ne ginnaaw biñ la laajtee ñu ne sëñ Cheikh Sarr guérisseur traditionnel la day faj lépp luy feebar lépp loo xamante ni jàngoro la di dal doomu aadama bi ku ñëw ci seen Cheikh Sarr da koy faj. dëgg la dañ koy faj si kàttanu yàlla li tax ma ne la dañ koy faj si kàttanu yàlla yàlla mi nga xamante ne mooy tege jàngoro. moo koy tegg si anam bu mun a doon yàlla mooy tegg jàngaro te mooy teggi jàngaro yàlla tamit yàlla itam dafa ne ñaan leen ma ma may leen ndax addu'a ul silaaxul mu wa imaadu diini wa nuuru samawaati wal ardi kon ñaan yàlla moom mooy tegg bépp jàngoro bu mu fi mun a doon bépp mu lu mu fi mun a doon moom la jàngoro bu nekk nag soo déggee ñu naan la dañ koy faj axakañ dañ koy faj ndax yàlla rek a yor lépp noonu waaye nag mun nañ leen a wax ne lu ne dañ koy faj daal ba mu des damm damm ak foxoj loolu de wax dëgg yàlla moom mënuma si dara foxoj daal ak dama dama mënuma si dara waaye lu dul loolu lépp mun naa koo ñaan yàlla ba ndax nit ku nekk ak li nga ak li sa xol àttan loolu nag sama xol moom moo ko àttanul mais leneen lu mu mun a doon si jàngoro bu mu mun a doon sama xol àttan na ko te mun naa koo ñaan yàlla itam pour loolu mun a nekk. Hmm. Euh, ci ban xeetu xam-xam nga yëngu ndax am na xam-xam bu ñuul am na xam alxuraan am na lépp. ci yow ci ban xam nga yëngu. Euh, xeetu xam-xam yi yëngu. bari na lool ndax premièrement mun naa la wax ne al ilmu nuur moo nekk xam-xamu alquran alquranul karim ni ma ko xamee noonu laa xamee garab ni ma xamee garab yi noonu laa xamee jur yi ñetti façon yi daal laa xamante ne dama koy liggéey si anam ñu set wicc si anam ñu set wicc ni ma xamee alquran noonu laa xamee garab te ni ma xamee garab noonu laa ko xamee jur yi loolu alhamdulilahi rabbil alamin dama siy yëngu bu baax a baax a baax a baax a baax ñetteel ñeenteel ba itam mooy wàllu affaire ñaan moom moo ko ñeenteel kon ñaan la ak faj ban xeetu faj faj faj bu mun a doon jàngoro bu mun a doon dañ koy faj ci kàttanu yàlla ba mu des lee ma la waxoon ne damm damm ak foxoj la waaye lu ne lu ne rek ak li muy àndal ndax lu ne rek su amul accompagnement rek du mun a dem kon ñett yi daal ñoo mun a ànd si àdduna lenn aaya bu nekk rek ak garab bi mu war a àndal garab bu mu ah, bu mu mun a doon itam ak jur bi mu war a àndal ndax soo bindee téere dafa am jur yoo eh, deru jur yoo xamante ne ñoom lañ ko mun a ñoom lañ ko mun a owee am jur yoo xamante ne ñoo mun a ànd ak aaya bi te ñoo mun a ànd yi tamit taakat ak garab boobu kon aaya bi ak garab bi ñoom ñoo mun a ànd suñuy ëw jur bu nekk ak aaya bu mu war a ak téere bu mu war a ëw eh, noonu daal alhamdulilahi rabbil alamin euh, tey ndaw ñi jël yoonu gaal yi di dugg ci gaal yi di tukki zion euh, est-ce que jeune bu bëgg tukki bu ñëwé ci yow mën nga ko ñaanal ba mu egg ci jamm waaw sant yalla bu baax lolu dañ ci gëna a bu baaxa baax ndax waxon nañ ko waxaat ko waxaat ko waxaat ko yoonu tukk bi risque la jamono bi mu toll risque la bo xamantene ni képp ku ko xamoon waroon nga si mëna tégg sa tank waroon nga mëna sa tégg sa tank li tax ma la koy wax bëgg am bu mu la jaral bu mu la jaral ngay jaay sa ngor bëgg am bu mu la jaral itam ngay jaay sa mbala ngay jaay sa diine déedéet li tax ba jamono jiñ toll nii ñu am am ku am ak ku amul déedéet ñëpp bëgg nañoo am te ñëpp bëgg nañoo am bës loolu nag nekkul ne n'importe doomu aadama rek da nga war a am n'importe doomu aadama da nga war a am bës dafa am ñi war a am bës ak ñi war a am alal ak ñi war a am tur ak ñi war a am daraja nit ñi ñëpp yemuñu ndax yàlla dafa may te yemalewul la anna nasru minallahi qaribun nasru minallahi wa fatun qaribun wa bashiril kon mayam yàlla nekkul ne ñëpp a ko war a am dafa am ñiy am am ñu dul am ndax ñi ñi dañ ëppante ñii dañ jool ñii gàtt ñii yem ñii xees ñii ñuul ñii xeereer yu mel noonu képp ku ko jàppee noonu nag noonu la géej gi li tax ma leen di wax naan neexatul eh, baaxul pour nit ñi di fa mun fi waaye di fi jaar bari na ay façon ndax soo gisee ñetti anam a ngi nii loo xamante ne war nañ ko mën a moytu premièrement mu nekk ne ngelaw bu bëri bi war nañoo mun a bàyyee loolu xel bu baax a baax a baax a baax a baax pour mun a moytu nag dem bi premièrement ngelaw bi su su aayee rek su taxawee rek géej gi day daal di aay ñetteel ñaareel ba itam mu nekk mbirum seytaane ñaari xeetu seytaane yi ñuy wax naan seytaane doomu aadama ak seytaane jinne ñaar yooyu bokk nañ ci li nga xamante ne ñoo occupé géej gi lépp noonu ba ku fay dem su dul ngelaw seytaane doomu aadama la mbala seytaane jinne la ñett yi daal ñoom ñoo ubale eh, yoonu waaye yoonu géej gi noonu te li siy dé ci ay doom adam ñi dugg ak ñi dé kèn xamul luñ tollu te loolu tamit man ma ngi ñaan gouvernement bi ñu gën sé xaraat sen tank tubé ndax ñi dé bari nañ lool lool lool jamono jiñ tollu ni su doon ñaan mëna ci dara akañ ñu def ko te ñoo ñoo ko doon def de waye nak dëgg-dëgg gouvernement bi mo ñu su wara gën bu baaxa baaxa baax ndax loolu mëna dañ ci biir réew mi nonu population ba nga jéx ñi ñoo ngi dugg ñi a dé té ñi ñiy dugg ñiy dee ñoom ñoo ëpp ñi dugg nonu yaa Cheikh loolu laa jotoon a xam si mbir moom euh, lan mooy xirtal jeunesse bi ci kaw ñuy dugg ci gaal yi dem rab la wala jinne ni ma koy def. li leen di xaftal ñàkk bokk na si ñàkk ñàkk xaalis ñàkk am-am ñàkk bëgg waa ñàkk euh, xaalis daal bokk na si li nga xamante ne moom mooy gën a xaftal doomu aadama yi pour ñu dem wuti ji alal ndax fi nga nekk li nga nit ki nit doomu aadama bu mu mun a doon li nga bëgg saa yoo ko amee rek. jeex na mais li nga bëgg soo ko amul rek si anam bu la neex nga koy wuti jee noonu loolu nag mooy waral nag ma jaay sama ngor lii mooy waral itam ma jaay sama bopp lii mooy waral itam ma jaay sama diine lee mooy waral itam ma jaay sama an eh, sama mbir si anam bu mun a doon ma jaay sama bopp pour mun koo am kon am am bi léegi nu ma ko mun a amee rek baax na nu ma ko amee baax na xanaa kañ duñ fàttaliku waat nag islam bi duñ fàttaliku waat itamit taakat li yonent bi waxoon ah kañ. sëñ Cheikh Sarr. ñu gis Sénégal léegi lu doy waar di fi am doo xëy suba ba ngoon te gisoo déggoo rey déggoo dee gu bari lan moo waral loolu. li ko waral ba léegi itam wax naa ko waxaat ko bari na si jamono juñ toll nii ndax waxoon naa leen ne di ko waxaat tamit te day gën a yokkuwaat ci biir Sénégal loolu bokk na si li nga xamante ne war nañ si mun a def ay jéego maanaam am si ndëgërlaay boo xamante ne macha allah pour luy mun a aar dëkk bi si boppam ndax liy jéegaane si di dugg si. li doom adama yi di dugg si biir dëkk bi nii di daw si di jóge yeneen dëkk ya di daw si bari nañ lool mun naa la wax ne lu ko ëpp ñaar téeméeri yoon noonu la rab yi ak jinne yi di dugg see si biir dëkk bi noonu noonu la ñuy dugg see si biir dëkk yi ndax yaa ngi may bàyyeel xel si ñetti anam yi liñ naan hôpital ak marché ba si eh, marché yeeg eh, hôpital yi ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne rab yi bari nañ fa lool. ñaarel ba itam nga duggal ma ci biir école yi école arabe école français bari nañ li li doom adamay di daanu gis nga arrêt car yi ni ñi wax ne naan lii bopp euh, ki arrêt car la dugg na fi génn na fi fofu li ci ëpp lepp bari na lo xamantene ay sacrifice rek ñofay gën di taxaw te lolu jinde ñokay gën di def Ya Cheikh dal li ma la bëgg wax jamono jiñ tollu ni dal si fièvre yi nga xamantene di am Senegal. liñ ñaan seytaane yi bëri na lool seytaane jinne yi bëri na loo xamante ne ñoom ñoo koy gën di def mais li nekk ci biir géej gi moo nekk ci kaw jéeri gi te li nekk ci géej gi itam lu ko eh, li nekk si jéeri gi lu ko raw moo nekk ci biir géej gi noonu waaye dama la bëgg a wax ne jamono jiñ toll nii gàllankoor yi bëri na li koy gën di andi mooy affaire u seytaane gal eh, reyante bi bëri na merante bi bëri na ja eh, lu ne lu ne rek bëri na si biir dëkk bi si loo xamante ne lu aay la lu ay gaaf la loolu lip affaire xeytu setan yi rek ñom ñokay jënd andi nonu ma la koy limal nak si marché yeeg hôpital yeeg xew-xew yi ba ci terrain ya yoyu yep likoy gënd waral mu nek affaire setan yi nga xamantene ne la ko ci lañ def nonu bir Sénégal fi ni te da ngay gis ne ni doom aadama di joggé bitim réew xat bitim réew si Afrique fi ni ni ni dugg si bir Sénégal non la rabbi ak setan yi di dugg see si bir Sénégal fi ni motax tax bi nak bari na ñàkk wér yaram itam bari na ya Cheikh lila ci si xam Hmm. Euh, sëñ Cheikh dégg nañ ni ku ay nga ci walu set tay wah la doon wax setalal suñu rew mi wax ñu hmm. yan sarax lañu mëna mën euh pour rew mi neex jamm ji yok nan nga ma setalé wa jamm xam nga le nit ku nekk nit ku nekk ya wara sababul sa bop jamm ndax nit ku nekk am jamm ndax yalla génnul ci doom adama bi nga amé jamm ma am jamm buma buma yobul keneen musiba da nga am jamm ma am jamm te dañ wax ne nañ ñaan si barki anta salaamun minka salaamun ilayka salaamun salaaman qawlan min rabbi rahim xanaa jàmm jooju suñ ko ñaanee yàlla yàlla dinañu ko may mais dafa am ñoo xamante ne ñoom jàmm gënalu leen am ñoo xamante ne itam bëggaluñ seen bopp jàmm am ñoo xamante ne bëggaluñu réew mi jàmm ñooñu ñëpp suñ nekkee si biir dëkk bi ëpp ñi xamante ne ñoom ñooy ñaan jàmm kon jàmm du mun a am si biir dëkk bi fii nii jàmm du mun a am si biir réew mi fii nii te réew mi fii jàmm rek lañ war a gën a ñaan yàlla ba yàlla mun ñoo defal jàmm ndax suñu amee jàmm naataange xéewal wér yaram lépp lu nit xalaat si boppam si lu baax di nga ko mun a am waaye su fekkee ne nii ma la ko waxee nii ñi bëggalul seen bopp jàmm te duñ ko bëggal réew mi duñ ko bëggal keneen ak keneen jàmm ji ñuy ñaan yàlla ñun du mos a am si biir dëkk bi foofu ndax li olof Njaay di wax naan su fukk di gas téeméer di suul pax du mun a am dara du mun a am si àdduna kon foofu kàmb dafa mun a am téeméer di suul fukk di gas dara du mun a am foofu lii daal laa la bëggoon a wax ci côté boobu kon nañ gën a taxaw farluwaat am si pas-pas def si suñ këmti lay kàttan ñu ñaan yàlla ndax yàlla mun ñoo may jàmm ñàkk jàmm ji nag li koy gën di li koy gën di andi ma wax naa la ko sànq bari na ci doomu aadama yi ñoo xamante ne bëggaluñu seen boppu jàmm te rab yaa ngi fii nii bëgg bëggaluñu waa bëggaluñu doomu aadama yi tam jàmm xaataa ñi nga xamante ne sax ci yenn coli ñi lañ koy soloo ñooñu lépp ci li nga xamante ne ba rab yi sa gën a am doole ci biir dëkk bi ak lii ñaareel ba ak ñetteel ba itam sacrifice yi bari nañ lool ku jóg damay rey ku jóg damay rendi ku jóg man maa mun lii man maa mun lee man maa mun lee ndax deret nit mun na dëkk di dëkk di ñaan yàlla di tuur deret rek di ñaan yàlla di tuur deret rek ba kañ xanaa dama bëgg a wax ne doomu aadama sakkantuma jullit sax est ce que moomul ne set tabaski rek la war a sacrifice la war a tuur deret à loolu am na ñoo xamante ne seen wërsëg seen wërsëg rek ñoom deret la laaj am ñoo xamante ne itam seen wërsëg laajul deret mais ki nga xamante ne laajul deret laajul deret nga koy defal lu weex nga koy génneel saraxu lu weex kon kooku da nga koy lor koo xamante ne saraxu lu waay lu weex rek lay laaj nga koy génne nga koy tuural deret di ko reyal xar mbala béy mbala nag kooku ba léegi itam gàllankoor rek nga koy yokku kon li ma la bëgg a wax waxtu bi ñu toll nii nañ seetaat nañ seetaat te gouvernement bi sa war na mën a jóg sax si ñi nga xamante ne ñoom ñooy waxantu naan ay maamoon lañ sëriñ laa dugg na fii génn na fii fii képp ku fi amatul këyit te nañ seetlu nañ jël ku nekk ñu woo leen ba ñu ñëw ku nekk ñu mun koo jox feebar yoo xamante ne feebar yu garaaw la ñu ne la faj ko soo ko mun ta faj tam nga dagg sa waa nga dagg sa kurus mbala nga dagg say pas-pas mbala nga dagg say waa sa yeneen anam nga dagg ko te bàyyi li ngay woote wu naan waa loolu nga te nit balaa ngay wootewu dara day fekk nga mën ko day fekk nga ne fa yaa Cheikh lii laa jotoon a xam. Mm-hmm. Euh, sëñ Cheikh lan ngay tàggatoo. mais li may tàggatoo ba léegi rek di gën a ñaan yàlla yàlla gën fee yokku jàmm yàlla mi am jàmm te di ko joxe te di ko joxe nu ko neexee ndax moom mooy faalu lima yurid moom yàlla mooy defee nu ko neexee dañ koy ñaan rek mu gën ñu wàcceel jàmm te lépp lu fi nekk si seytaane itam yàlla mun ñu koo génneel yàlla yokk barke bi yàlla yokk jàmm ji ak sutura bi ak gudd fan beeg gu yaram bi biir Sénégal. نصر من الله جزاكم الله الحمد لله رب العالمين